ginnaaw rek seen nag ñàkk bakkan jàpp ne daal uh, faatu gi dafa anam jaar ci anam yoo xam ne daal doy na waar te nag jot na yoon leeral ko joxañ ca baaraam tuuma nguur gu fi jóge njiitu réew Macky Sall jiite woon ko jàpp nañ ne daal loole war nañ ko mën a leeral ba mu leer nañ képp koo xam ne daal tuuma lañ leen ca yoon daal di mën a def liggéeyam addu jëmale ci waxtaan wi sumb woon ci wàllum yoon jàppale ne jeexital ga daan nañ koy dëxañ wa noppi euh, njiitu réew mi jëla ndogal fas yéene jëmmaal digle yi nga xam ne amaloon nañ ko ci toll ci ay fanweer jàppale na nag loole jàpp nañ ne dina gën a mën a dëggal wàllum démocratie daañu ci teelu jàngatu ko Mamadou Sy Albert jotaayu euh, xibaar yi daañu itam jëmale ci diwaanu ko bu Ndakaaru case tout petit ya jàppale ne daal euh, mbir ya doy na waar ndax daal màkkan ya dafa rek màggat loolu te mën ji nga xam ne leen daxal laal bokk na ci ñàkkum kaaraange gi waaye te mbënd mi bokk na ci li indi yooye xeetu jafe-jafe ke tabu yees ci bopp ba nag moom neen dina def kémtu lay kàttanam ngir rek defaraat nag case de tout petit yi bu ko defee daal mu mel ni mu meloon bu njëkk mbokk yi ponk yee gën a fës boo leen taxee doo ñu faram fàcce ko jaajëfal leen bu baax a baax ci teewlu bi ànd bekk 7TV dañ koy tàmbalee ci tënk kuréel gi ëmb reporter yu Sénégal njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye daan leen dalal ca palais de la République mi ngi Maram Ndiaye mi nga xam ne moo jiite rek boobeek kuréel daal dinay fësal jafe yi nga xam ne taskatu xibaar yi ñu ngi koy ah, jànkonteel seen wàllum liggéey payoor wi néew loolu waaye itam ah, wàllum tàggatu bokk na ci li leen soxal ak itam wàllum kaaraange ah, daanaka day prox ndoolu wàlle mu wax lépp lu jëm ci wàllum itam li nga xam ne mooy payub lémp gi bëgg rek ñu gën ko woyofal nag groupe de presse yi la waaye itam loole daal di koy tënk ci rek jëmmal code de la presse bi la jox ko cëram ci boobee jamono nag njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye daal nay rafetlu nag kuréel gi ak seen ab taxawaay bëgg rek amal seen liggéey ci anam gu jaar yoon ne loolee nag mooy gis-gisu nguur gi itam ndax bëgg na rek lépp lu jëm ci wàllum bonne gouvernance moom ci lay dox Bassirou Diomaye Faye itam daal nay taxawaale ci rek li nga xam ne jox na ko cër muy wàllu wàllum euh, fiscalité nee na daal loolee ak itam jox cër luwaay bokk na ci lu ko gën a amal euh, solo ndax loolee day gën a dëgëral démocratie réew mi liggéey nag gi nga xam ne taskatu xibaar yi ñu ngi koy defa nekk na lu am solo ci rek euh, Sénégal ba tax nag war nañ leen caa mën a daal di jàppale teg leen loxo loolee di kàddu Bassirou Diomaye Faye ak jëmale ci leneen Fulbert Sambou di bàyyit yi ñaari sandarme yooyu nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ci xam ne seen ay jege ñaale ne daal dafa doy waar jot na nag ñu daal di koy leeral tax na ba nit ki sànq ñu doon jënoog taskatu xibaar yi indi tontu ci kàddu yu jóge eh, ci ki ñu dénkoon eh, wàllum yoon jàpp nañ ne itam eh, li nga xam ne rek daanaka wax na ko du tee benn yoon nag ñoom fa ñu taxaw rek ñu taxaw fa moo di yoon def liggéey ci seeni t ñu mën see gis photo wu Fulbert Sambou ñoom ñu lay bokkoon ak moom demandoo armée ci atum 1998 ñoom nag ñu daldi jóg ngir rekk yoon daldi def liggéeyam ngir ñu xam ana lu nekk ci ginnaaw génnub àdduna Fulbert Sambou. li ñu wax ci Fulbert benn ñun gëmuñu ko ndax. corps bu def cinq jours ci ndox le 18 ba le 23 ñu ni mënuñu ko autopsie man ci taatu ndox laa dëkk. koor boo repêché jël ko yóbbu ko ba yóbbu ko morgue kon corps boobu waroon nañ ko mën a autopsie bu fekkoon ni corps bi am na décomposition avancée comme nit ñu ko waxee kon on devait l'enterrer sur place à la place. Fulbert Samb. daal di réer fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre bi weesu ci anam yu dooy waar njiit yu fi nekkoon xamle woon ni dafa daal di lab gannaaw bu mu demee napp ji géej li ni mel nag ñoom ñile dañ ko daal di weddi ba mu set wicc. Didier était gendarme des sous-officiers de l'armée sénégalaise ñu ne dañ leen boole ci amnistie ils étaient pas des hommes politiques kon bu ñu demee ba di leen boole amnistie kon yaa a crime y a crime looy amnistie c'est parce que dafa am crime. kon ñoom ñoo rey Fulbert Sambou kon moo tax ñu bëgg ko amnistier jamono ji nag seen bëgg-bëgg mooy njiitu yu bees yi daal di jël mbir mi fexe rek ba yoon daal di def liggéeyam. pourquoi ils n'ont pas exposé le corps de à sa famille à ses amis donc y a quelque sos euh, loo xamante ni waxuñu ñu ko te ñun loolu la bëgg ñu leeralal ñu ko mu leer suñuy bët. mu nekkoon invité wu MNF. Ismaïla Madior Fall jotoon la xamle ni génnub àdduna di jëbat ji ak Fulbert Samb dafa daal di bokk rek si loi d'amnistie bi nga xamante ni ni dañ ko daal di voté loole nag daal di woon jur coow bu bëree bëri tax na mu génnaat di leeral ni li ni mel dafa doon njuumte. dañuy des ci ndaje goge Babacar Diouf ñu koy oowee Aba Kara moom itam ñëwaat na rek ci di Didier Badji jàpp ne daal lépp lu jëm ci ay jumtukaayam yu moomoon nag moo xam pièce d'identité ak kart bancaire lépp mu woon ci wotaw nga xam ne gaare woon na ko ca bërëb fu sorewul dara fi nga xamee ne fa lañ ko fekk mu daal di tëdd moom mee nag jàpp na daal ñëwkatu ñaawtee fi nekk ci ginnaaw loolee war nañ leen teg loxo. tey lu ngeen xamul Ousmane Sonko. avec tout le respect qu'on lui doit Ousmane Sonko ak Fulbert Sambou étaient des camarades d'école ñoo jàngandoo au CMT de Ziguinchor oto Didier Badji fi ñu ko baasoon Cap Manuel oto baa ngi foofu ñu baase ba léegi lan na ci biir nag ñoom ñoo ko xam ci biir oto bi enveloppe mi ngi fii te am naa ci ay lu leer naññ que ne enveloppe boobu permis Didier mi ngi ci biir enveloppe bi carte d'identité Didier mi ngi ci biir enveloppe bi carte professionnelle mu tijjee mi ngi ci biir enveloppe bi sa carte bancaire mi ngi ci biir enveloppe bi lan moo ko fa dugal man bi may dox sama kalbe mi ngi sama poos sama kalbe bi tey bu ñu ñëwee ñu fekk ko padoa bildeuse lan moo ko yóbbu padoa bildeuse ki ko fa yóbbu mooma sàkkal pexe ñi jëlaat balagaasu dijee yooyu yóbbu ko ci oto dijee ñoo sàkkal dijee pexe te ñi sàkkal dijee pexe ñoo sàkkal suñu classe Fulbert Sambou pexe lu mooy loolu dañuy àddu ci téere bi nga xam ne daanaka ñi seen xam-xam màcc ci wàllum yoon wala sax jot caa jëflante liggéey woon leen santoon te jam ñaajoo jébbal téere wa ci réew mi Bassirou Diomaye fay daanaka la mu fësal bokk na ci daal ñuy liggéeyee ci wàllum yoon lim nga dafa néew moo xam avocat greffier ak itam ñeneen ñi nga xam ne daanaka dañuy liggéey ci wàllu notaire ci huissier jàpp nañ ne daal war nañu xool naka la ñuy def ba daal leen yokk bu ko defee loolu yëpp nag nar a nekk njariñu askan bi Mamadou Konte leen ci àndal ab lël bu ñu amaloon jam ñaajoo ngir waxtaane ni yoon di doxee ci biir réew mi dafa wane néewaayu nit ya cay liggéey ndax juróomi téeméer magistrat ak fanweer rekk ñoo nekk ci réew mi ngir taxawu fukk ak juróom ñett million nit yu fi yeewoo ñett téeméeri avocat ak fanweer ak juróom-ñett ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari greffier mu di ay lim yi néew lool ci réew mi nga xam ne ni bëgg na waxtaane état de droit manquement yooyu di faral di am gàllankoor ni yoon di doxee ak nu ñuy taxawee ma réew yi ci loole ñu nemmeeku ni ay gox yu mel ni Fatick Kaffrine Kédougou Matam wala sax Sédhiou li fa nekk ci limu avocat néew na lool loole nag di salfaañe benn principe bi nga xam ne ni moom la ñu xam ne ni am na jafe-jafe ak yoon ngir mu mën a defendre boppam loolu yëpp day wone ni ngir tabaxaat yoon ci biir réewum Sénégal faaw rek ñu yokk limu nit yi nga xam ne ni ñoom ñoo cay liggéey ba bépp ma réew mën a jot nu mu gën a yombee ci justice bu Sénégal rapport bi nga xam ne ni moom moo tukkee ci assise nationale sàkku it ngir ñu gën a ñoŋal ci anam yi nga xam ne ni moom la ñuy liggéeyee waaye tamit mën a jëmmal seen indépendance dooleel magistrat yi wala auxiliaire de justice yi day aajo ngir ñoom it ñu xam lu leen war ci liggéey bi nga xam ne ni ñoo ngi koy amal. ba tey ci bés bu démb gi ca palais de la république ñeel waxtaanee yoon njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye lu ñeel nag conseil supérieur de la magistrature jàpp leen ne tontu wam ca indi daal nee leerul tax ba sa laaj bi sampu ci wàll ga dafa war a génn am déet ca loole tontu gi Amadou Salbert. je ne tiens ni à rester ni à en sortir. position njiitu réew mi nag mi nga xam ne leerul. yéenekaay yi fës si aljuma ji wax nañ ci mu mel ni nag magistrat yi ci seen wàllu bopp ñoom ñoo bëggul kii di njiitu réew réewum Bassirou Diomaye fay jóge ci conseil supérieur de la magistrature mu ne de ngir démocratie bi mun a dox waaye itam justice bi moom boppam faw ko njiitu réew mi jóge fa bu ñu sukkandiku ci Mamadou Sy Albert. lu gën a jaadu mooy mu génn ci conseil supérieur de la magistrature justice mën a nekk une justice indépendante. def naa loolu daal euh, la ñu xaar mais su ko deful loolu dina indi ay jafe-jafe euh, xëy na sax nit ñi duñu gëmati li mu lu mu digoon. hésitation yi nag ana lan moo ko waral ci ponk goo xam ne sax promesse électorale la woon mu mel ni nag enjeu politique yi ndax nag loolu bu sottee régime présidentialisme bi dina daanu njiitu réew mi dootul amati doole bi biñ ko xamee woon gannaaw bu Sénégal amee indépendance ba léegi. président mënatul du en tout cas du am doole pour euh, su buggoon par exemple arrêter opposant mais justice mën na bañ su su bëggoon régler problème personnel justice day bañ loolu moo tax il faut mu génn foofu pour justice bi. am indépendance comme moom président ni mu amee indépendance. bu ñu sukkandikoo ci sunu analyste politique njiitu réew mi bu jógee ci conseil supérieur de la magistrature loolee dina gën a libérer démocratie bu Sénégal waaye it séparation des pouvoirs bi ñuy wax saa su ne dina doon lu wér loolu bu amee nag Mamadou Sy Albert di ñaax rek conseil ba mu ubbil ay buntam yeneen doomu réew mooy ñu bokk ci yeneeni métier yu ci mel ni ki universitaire ya journaliste ya ak. société civil jàngat téeméeri fan ginnaaw ba ñu turee mi bas jox ko nag bopp réew mi liggéey wa lam ca def am na ñu ko ni am na ñoo xam ne itam joxoon nañ ci seen xalaat groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar daana ci indi itam gis-gisam Abdou Mbow ak ñi mu ci àndal jaarale ko ci ak bataaxal jàpp na daal ñoom yaakaar gu tas lañ ci am waaye nag gën nga sori lam fësal moo di Diomaye ak Sonko ñu ngi door a xam dëgg-dëgg lu état si taxal bi ñu bind groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñu ngi fësal bilan bu doy waar ñeel rek téeméeri fan yu njëkk ba Bassirou Diomaye Faye si boppu nguur gi ñoom gis nañu ni kilifa yu yees yi jiite réew mi jamono gi xamuñu fu ñuy teg seen tànk dañuy tandute ndax tegaguñu dara lu leer dara loo xam ne dal na xel askan wi si kàddu yi Abdou Mbow ak ñi mu àndal Bassirou Diomaye Faye ak Sonko la ñu diggee woon bi ñuy def campagne électorale dañoo ñëw bu dugg si nguur gi xam ne li ñu doon wax dara teguwu si li ñuy def yëpp du lenn lu dul nëpp seen ñàkk mën a warmaal li nga xam ne diggee nañu ko ak askan wi ñoom député yu bennoo ñoo ngi xam le ni mbetteel gu rëy a tàmbalee dapp ñu bëri saaskan askan wi ñi nga xam ne ñoo fal bi leen nguur gu yees te balaa yàgg daañu xam ne lañ leen doon wax yépp ay naxe mbaay la amul dara lu si tegu ñu gis ne tàggatoo bi yàggatul léegi lépp leer naññ ñu gis ni daal tàmbali gi neexul ñoom waa groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ak itu wute gu yaatoo yaato si diggante la nga xam ne moom la ñu woon ni dinañ ko def ak lii ñu tàmbalee di jëfee lu mel ni wàññi li mu ministre waa Benno Bokk Yaakaar gis nañu ni des na tuuti conseil des ministres sa Dakar Arena lañ koy amalee ndax rek ay ministre conseiller secrétaire d'état yoo xam ne ñu ngi wéy rek di leen fal ba rek xàjjatuñu ci table conseil bi nee na njiit gis nañu ni appel à bi ñu doon wote sa benn lu ni mel dañ ko teg ci suuf ni ki pétrole ak gaz bi ñu ne woon dinañ ko saytuwaat jaarale ko ci yoon ñu gis ni daal nguur gi jamono gi ñaari nit ñoo koy jiite mu di Sonko ak Jomaay te lu ni mel mën a tàbbil réew mi ci guuta ñoo ngi ŋàññi it ñàkk a wormaal digg gi ñu ne woon danañ fi jëlee ngóor jigéen di homosexualité Abdou mbaw ak ñi mu àndal tudd nañu it xeex bi dox jamono gi ci diggante yenn organe de presse yi ak nguur geek compte yi nga xam ne dañu ko bloqué ak it convention yi ñu gàntal li ñuy ñaan Ousmane Sonko jiite gouvernement bi mooy rek bëgg askan wi uti saafara si seeni tawat jëlit ay responsabilité am dem def li di déclaration de politique générale am Demba Mbaye dañuy yegg si ci jàngatu bés bi ak Modou Sall PR daanaka taxaw ci waxtaan yi ñu amuloon ci wàllum yoon ak itam yi ci réew mi taxawaay bu mu ci am ne daal daañu ko jëmmal yooyu digle toll ci fanweeri poñ dinañ daal loolee daanaka du naax saay mooy bëgg-bëggam loolee nag itam lu undu rek moo di fulla gi nga xam ne def nañ ko ci ak liggéey wa eh, ci wàllum yoon bu ñu ko defee itam ci yenn bànqaas yu tënk réew mi tax na daal dina tax ba Sénégal mën a gis boppam bu baax waaye itam gën a ñoŋal wàllum démocratie Papa Ndeye ci ndaje mi ñu ko doon jébbalee rapport bu tukkee ci assise de la justice moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay daal dina xam ne ni dina jëmal mbir yi nga xam ni déggoo nañ ci. mu di doxalin boo xam ni dafa dëppook li nga xam ni mu ngi koy def ba mu yegsee ci nguur gi weeru avril atum 2024 ba nëgën yi ay déggoo ci wàllum doxalin dafay gën a dëgëral ni nga xam ni noonee la démocratie di doxee loolooy njariñu waxtaan ci wàllum politique saa yu waay politique yi tase wala ñu bokk ci société civile amal ab déggoo ci coppiteem ay bànqaas ay institutions code électoral démocratie dafay gën a am doole. te loolee Sénégal daanaka am na taarix bi donte ne bëri na ay jafe-jafe yu ñu fi yàgg a nemmeeku waaye démocratie Sénégal dafa mës dëgër code électoral consensuel bu 1994 moo jur première alternance bu 2000 réforme constitutionnelle bi nga xam ni amaloon nañ ko ci atum 2000 moo tax jàmm am ci élection yoo ca topp daanaka finde yi bëri na ci wàllum politique ak ci wàllum syndicalisme. yeneen coppite yi ñuy dëgmaal ci wàllum code pénal procédure pénale mën nañ ci am itam ay déggoo waaye déggoo bébé dafa war a saasu ne di suuxat démocratie waaye itam noone nga xam ne la yoon di doxee ak lu ñu duppee séparation de pouvoir ab déggoo dafa war a ubbi porox ndol yu rafet ci wàllum politique. Image bu senegal di Ousmane Sonko ni ki ëllëg dina def tukki nemmeeku ci diwaanu Ndar géej lu ni mel day soxal seen bëbër gi nga xam ne jël nañ ko bokk na ci tal réew mi loolee nag ñu fas yéene ëllëg ci gaaw gile ñi nga xam ne nag ñooy waa Pastef defeete woo foofe ña ngay waajal seen bopp bu baax fas ne ginneeg lim gu takku ci ay doomi aadama daal di koy tertu ci boobee jamono itam daal nañuy métitlu yenn ci ay joyantu yoo xam ne nii ni njiital bokk moom la Mansour Faye daana koy wax defar doo xaar président di wàcc di ko def wala membre du gouvernement dañu gëm ne ku ci nekk sa buntu kër yow yaa koy defar sa bopp kon ci loolu bu guvernement bi ñëwee def ko ñëw defal ñu honneur au niveau de Saint-Louis war a ñëw fii incha allah avec ministre de l'hydraulique pour ñëw ñu def action bi fii day nekk loo xam ne lu neex la responsable des femmes defe naa ne MOJUB moom buñ ko waxee moom mooy mouvement des femmes ñu ngi ciy woo ñëpp comme ni ñu ko daan defee di ci woo tout le monde di ci wax ne Euh, nekk na loo xam ne ñëw na di ko def mais même bu ñu ñëwul woon tam aussi ñooñu daan defee di bay suñu waar dinañ ko def di ci woo tout le monde. premier ministre Ousmane Sonko dafa bëgg ndar si xolam. moo tax ma damay woo tout le temps nii ñun ñii ëppale ko dara si nekk bu ñu nekk ndar-ndar ndax fi la cosaanoo paawam yu am importance si ndar la ko jëlee moo tax su ne tey jii tànn na ndar pour ñëw fii Euh, si opération set bi xam ni aussi euh, nawet baa ngi ñëw ak inondation yi nga xam ni moom la ñuy jànkonteel ak problème mu assainissement bi nga xam ni mooy suñu problème mu bëgg fi ñëw euh, jàppale ñu ànd ak waa yi pour liggéey si loolu. xibaar politique ci tank Abdoulaye Ka mooy jiital bokk moomeel bu Padoa niki tey ji nag ci aljuma ji lañ ko daal di fal mu am nag. lu toll ci ay xob euh, fanweer ak euh, juróom euh, ci ñaar fukk ak juróom bu Jean-Louis Ndiaye bu taxawu Sénégal jàppale na nag lu nu mel ñu ngi ko fësal ginnaaw rek ba ñu falee soxna sa fa newoon di Maimouna Dièye mu dénk lépp lu jëm ci wàllum njaboot gi waaye itam moom mi tekki woon ndombal tànkam ci boppu mairie wa niki tey ji nag moom daal nañuy amal lekk wot ba ba keneen uddu ko ca tooguwaay ba addu jëmale ci kuréel gi ëmb liggéeykat yi féetewoo ca diwaanug eh, AIBD foofe nag jàppale ne ñi nga xam ne ñoo di seen ay naataango dellusiwaat nañ ci kàddu yi nga xam ne daanaka yëkki woon nañu ko fa ba tax sax fi mu ne nii eh, nee nañu daal taxaw nañu temm te ànd nag ak saytu yi nga xam ne ñu ngi koy def barab boobee xool eh, koppari nañ ko yore woon. syndicat liggéeykatu ay AIBDSA li ñu bëggoon mooy gën leerlu ci situation bi nga xam ne jàpp nañ ñe ñenn ci seen ay ñoñ ñoo ko bëgg indi ci société bi ginnaaw bi nga xamee ne lancé nañ ci ay mission d'audit ñoom nag jàpp nañ ne fi mu toll nii amul dara lu luñ fi war ñaxtu. coow li nag mi ngi démarré bi ñu déggee ni am na ay audit yu am ba tey ñu gis ne IGE mi ngi ci biir kër gi amul benn plateforme revendicative boo xam ni def nañ ko ay discussion wala négociation yoo xam ne entamé nañ ko ba mu am ay grabuge ba mu war jur ñu ne dañuy déposer préavis de grève ba tax na ñuy xamle ne dañuy jàppale bu baax kii di seen directeur nga xam ne jàpp nañ ne mu ngi def liggéey bu mucc ayib ñun ñi ngi naan directeur bi fi ñëw bees muy seex Abiboulaye Dièye bu mu yokki bu mu randu te li nga xam ne démarré nañ ko na dem ba mu leer pour kër ñu xam ak ñu mën a situer les responsabilités par rapport ak li nga xam ni moo fi am. jàppale boobee nag ñu boole ci ay sàkkuteef. ñun lii suñu proposition en tant que syndicat mooy que personnel bi nañu def redéploiement il y a plus de dix terrains d'aviation am na ci foo xam ni agents yi xëy na néew na fa soxla nañ fa yenn travailleurs yi lenn li beneen bi muy wàllu donc euh, transformation d'emploi ñu jël yenn travailleurs yi defal leen transformation former leen ci leneen. naka noonu syndicat bi di ñaax directeur bi mu woy ci yoon bi nga xam ne tàmbali na ko di waxtaan ak ay ñoñam ak itam ak liggéeykat yi ñi xam ne itam ne li jëm ci wàllum intéret ak condition liggéeykat yi gisaguñ fi dara li nga xam ne jar na ñu war a génn di wax Boubacar Camara ni ki dem moo nekkoon gënoog Mamadou Ndour Faye ci mission L'invité d'un MNF addu jëmale ci wàllum koom ak yoroon gi nga xam ne ni eh, kilifa yi yees yi ñu ngi koy amal lépp nga xam ne daf nañ koy koppar ci eurobond tollu ci ñeenti téeméeri ak juróom fukk jàpp na nag loolee dafa na metti ndax dafa dëkk sax ba egg ci ay milliards nee na daal li nga xam ne rek moom lañu ci war a taxaw sedd moo di ñooñee bu ñu la lebalee xaalis moo xam ne mun mun ti takkoo yenn saa yi nag diit gi nga xam ne ci lañ koy fay day gàtt borom xaalis yi dañoo barale ba nga xam ne dañ koo dajale ah, teg ko ku bëgg lebal ñu lebal la mais bu ñu lay lebal li ñu ciy teg dafay bare ah ba pare diir bi ñu lay laaj pour nga fay dafay gàtt te boo fayul pexe yi ñu am pour sonal la dafay bare bu fekkee ne da nga nekk dëkk boo xam ne bii ah, amuloo tellement doole ah dañuy bañ nga jël ko parce que li ngay fayeeku ah, taux bi liñ ci teg dafa bare te bu fekkee da nga leb ci circuit yu normal yi taux bi du bare da ngay nekk loolu la ñuy wax taux concessionnel pour aider la nga def développement et day day ay durée yu yu bare souvent nag dëkk yi dañ koy jël bu ñu ñàkkee pexe li bon mooy nga def ko euh, ku ñàkk jom rek parce que ñoom sax yoo ñëwee ñu lebal ñoom moom ñëwal parce que xam nañu seen xaalis dinañ ko recouvrer looloo tax euh, ñu bare dañuy éviter di ko def même bailleurs yi dañ koy éviter ah, boo jëlee lu ëpp sax ñu ne la non dañ yóbbu ko euh, ci beneen budget bi et tout parce que comme danga koy fay li ngay fay aussi warul yàq ñi lay lebal ci taux bu gën a simple. dañuy wutale ci diwaanu euh, banlieue duñu leen ko sax sànq ca bopp ba case des tout-petits fa féetee dafa rek màggat lool li ko war bokk na ci euh, mbënn mi saa bu tawet euh, bu nawet ñëwee rek taw bu soobee yenn saa yi day amee njeexital yu doy waar ci yooyee màkkaan ba tax na nag ñu tab yees dénk ko ko neen daal fas na cee xaar tànk tubayam def ci liggéey yu am solo case des tout-petits bi mu ngi ca cité gendarmerie bu jaxaay case bi nag mu ngi ci état de vétusté mu nekk menace ci gune yi ca beneen côté précisément ca jaxaay en fii nag case des tout bi jafe-jafe bi lenn la mooy ñàkkum kaarange ak inondation suñu miir dañ ko daaneel biñ ko daaneelee ba tey ku ne jooy nañ la ko pour nga ñëw gis nga ni dara baaxu fi am nay ñax am na ay jën jën sax mi ngi ci biir. coordonnatrice ak petite enfance case des tout bu bees bi. ne umpalewul yooyu lay jafe-jafe fii ci yi ak niveau national dana def kem kattanam ngir jël ay matukaay ngir ñu réhabiliter ak renforcer yooyu la case des tout petits ngir mu am fonctionnement bu bees. man yàgguma bu ñu ma installé donc comme coordonnatrice régionale fii ci dakaar waaye teewul situation boobu yëpp mu sama kaw taabal xam naa situation boobu te yaakaar naa fii lekk euh, bu ma ja jaakaarloo kilifa gi muy directrice générale dinañ ci jublu. bu neexee yàlla fexe ba case yooyu yëpp mën a fonctionner parce que comme nuñ ko waxee fi mu toll nii jàngum ndaw bi lu am solo la. lu jëm ci wàllu préscolarisation mu jàpp ne taux bi dafa faible lool ba mu jàpp ne dañ ci war a xar seen tànk tubay fii ak 2030 ñu fixé wu comme objectif 65 pour cent. préscolarisation bi mu ci 19 pour cent. te nee nañu fii léegi 2030 bëgg nañ mu yegg ci pour cent donc euh, lu euh, lu ñu mën a am case yi mel noonu di ko bàyyi kon dinañu def suñu kem kàttan fexe ba case yooyu mën a fonctionner. ca yeneen localité case de Tout-Poti dañ ko transformé def ci leneen bu ñu sukkandikoo ci source concordante ca géej waa case de Tout-Poti leneen lañ ci def lu dul xale yi di fa jànge ñanga beeg ñàngale bi ci tënk examen bu BFM daal di ñu koy dàq jàppale ne ñu ko jàppoon alxames fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sulet ci bu ko altine ñaar fukki fan ak ñaar ci weer bi ñu nekk xabaar ga bawoo ci jële bi ñu gàlloo lépp lu jëm ci wàllu njaay jënd ci li nga xam ne rek moo di wàllum njàng bekk njàngale bi di Moustapha Guirassy tey jii nag ci aljuma ji la ko daal di fësal ci xayma lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukki junni yu toftal juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ay ndongo ñu fas yéene sëgg ci boobee examen bu atum 2024 xam mbokk yi jaare fi buur jotaayu xibaar yi jaajëfale lu baax ci teewlu bi ànd bekk 7TV eh, ci kanam tuuti Mamadou Awa Ndiaye dina dal la ganam ci biir 7TV soir bu ca noppee da jébal la ngay Germaine Diouf mu dikk génn ci xibaar yi ci kàllaama nasaraan jaa ngeen jëf